Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 12 février 2024 euh, sur VIP People TV la chaîne des grands événements suñu jógee foofu ca Cambérène Yoff Laye ci appelu Seydina Limamou Laye dañuy dem fële ca Nigéria bi yoon nag kan lañ fa doon màggal muy keneen ki nga xamante ni moo représenté lii di faydu bi fii ci Sénégal muy Cheikh Ibrahima Niass Maulana ki ko fa teewal nag di général de Niassènes Li Cheikh Mahi Niass ginnaaw bu mu jëlee jet privé dem foofu ca Nigéria yaakaar ni mu doonoon journée boo xamante ni ñu ngi ko jagle ki nga xamanteni moy mooy cheikh al islam di Mame Baye Niass ginnaaw lol nak stade bo xamanteni dafa fess del aduna wërngal kep dal di fay daje pour magal ki nga xamanteni moy magal faydu bi fi muy traditionnel gamu bi nga xamanteni mi ngi am ci Nigéria arrêté wul di émerveiller lépp loo xamante ni dafa jëm ci événement religieux jaarle ko ci communauté bi nga xamante ni mooy ñeseen bi nga xamante ni chaque année dafay drainer li nga xamante ni mooy ay fidèle yu jógee ci diverses localités yu mel ni ay réew yi nga xamante ni mooy édition 2024 jëmale ko ci gàmmu bi nga xamante ni dafa déroger règle bi ginnaaw stade bi dafa abrité li nga xamante ni mooy événement bi nga xamante ni tey dafa fees del balaa heure bi di jot en tout cas muy loo xamante ni nit ñi war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax gis nañu mbooloo bu takku bi nga xamante ni tey ci Nigéria la ñu bokk nekkuñu fii ci Sénégal mën na respecté kii nga xamante ni mooy suñu ay kilifa diine nekku ci mel ni tey Cheikh al Maulana Baye Niass bi nga xamante ni moo fi représenté faydu bi ci àdduna wërngal këpp te maax Mahi Niass toogal ko fi mu représenté leen kon yaakaar naa ni ku gis mbooloo bu takk bi ci biir Nigéria fii ci Sénégal yaakaar naa ni war na doon. gis-gis boo xamante ne ñii nga xamante ni ormalu ben benn yoon suñu kilifa diine yi na kii di Cheikh Mahi Niass bi nga xamante ni moo fi toogal mam Baye Niass ku ci mel ni ñoom Akhenaton ku ci mel ni ñoom kii nga xamante ni mooy kaay foofu bokk ci parti bi nga xamante ni moom la ñu muy Pastef te Ibra Khalima Déguène Mor Sodiange jiitu ko yaakaar naa ni ku xool lii rek tey waxuma la Sénégal mais ndagam Nigéria ñoo mën a drainer lu toll ci ay centaine de millions ay nit pour hormal kii nga xamante ni mooy Cheikh Ibrahim Niass Maulana Bay Niass ki ko fi toogal di Cheikh Mahi Niass yaakaar naa ni war nañ ci am gis-gis bu baakha a baax muy image yo ngeen di gis yaakaar naa ni foofu ca Nigéria gis nañu dal stade bi fess na bala nga xamanteni ki di xalif général de Niassène di Cheikh Mahi egsi na fofu ginnaw bu mu jëlee jet privé li rek war na woon ni que suñu kilifa diine yi dayo bi am fi nga xamanteni moy aduna donc dañ leen wara a deglu leen bàyyi xel ci ñoom rawatina kii nga xamante ne mooy journaliste bi toog fii bërki démb en tant que journaliste taxaw muy Pape Alé ne bu kenn dégloo ci benn kilifa diina yaakaar naa ni suñu gisee lii war nañu delluwaat ginnaaw <laughs>